mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk sant yàlla mi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan yàlla ñu yàlla may këndaluk jàmm amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ànd yen ci suñu tem bañ doon waxtaan ak yéen ci fan yu weesu démb ñu ngi yem ak fa yàlla di tagge borom xam-xam yi ak la ne boroom xam-xam bi naka ñaan ak daraja ba mu dig boroom xam-xam yi ne ñoom ñooy ñamuy teg place yu kawe boole kook way gëm yàlla ña nga xamante ne dañoo wéetal yàlla ci nañu gëmee yàlla bokkaale wu ko yàlla ak lenn bokkaale wu ko yàlla dara tey ndem soob na suñu borom subhaanahu wa ngi fas yéene jukkil lenn ci tegtal ba yonentu bi tegtal ci xadis bi nga xamante ne muttafaqun alayhi ca la xadis bi génne mu doon ñaari kamfoori yu dëppoon xadis bu wér la di buxaari ak muslim moo ne yenentu bi sallallahu sallam daal ni ñim wax ne ndem bur yàlla tabaraka wa bu soppee doomu aadama bu ko bëggalee yiw dafa am fa muy jëflantik moom walla dafa am na muy jëflantik doomu aadama woowu kon jëflante ba yàlla di jëflantik doomu aadama woowu du lenn lu dul la yonent bi joxoñ sallallahu alayhi wa sallam ki bëgg xam la yonent bi joxoñ ne ndem mburu yàlla namm na ci doomu aadama bi yiw lam koy jëfloo wala lam koy yenkeewal wala lam koy may ka bëgg a xam loole nang ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy baaxe xeet wi ne ñu man yuridillaha bihi xayran yufaq yufaqihuhu fi diin mbokk yi yan na yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima yan ko yàlla yokk xéwal ak mucc moo ne lii day firndil ne la ko yàlla ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mooy li te mooy li am te moo fi nekk di jebbi ba léegi bur yàlla ne ko yónni bi ma la yónni ci samay mbindaafoo du lenn du dara lu dul nga doon yërmande ñeel leen kon yónni ba yàlla yónni yónentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam objectif bi lenn dong la ngir mu doon yërmande ñeel mboolem mbindaafoo ni sallallahu alayhi wa moo tax yow mi dem aji makk keroog boo demee madinatul munawwara nga di ziyaar nga di ko nuyoo assalaamu alayka ya rasulallah alsalaatu wassalaamu alayka ya nabiyallah qad ballagta alrisalata wa addalta alamaana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi hatta ataaka al yaqin sallallahu alayhi wa sallam moo ne yow jaaj bi keroog bi nga demoon Makka yaa ngi naan yal na jàmm yàlla nekk ci yow mi yàlla yónni yal jàmmi yàlla nekk ci yow ak xiiwalam ak barkeem ak yërmandem yow mi yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam maa ngi déggal ne ca dégg dëgg dëgg dëgg yonent bala yàlla yónni matal nga ko maa ngi seede ne ca dégg dëgg dëgg dëgg risaala bala yàlla jox ndawalu yàlla ba nga doon matal nga ko waaw ndax joxe nga ko na mu gën a jekke leeralal nga ko ba mu leer nañ guddi beeg bëccëg bi ñëw ci bokk yem ci leeraay waaye laaye nga biir xeet waaw laaye nga biir xeet bi xeet bi laaye nga leen biir wax nga leen ba mu leer nañ jëf nga bi ñu gis waaye joxoñ nga tamit fu leer foo xamante ne amul dara lu ci lëndëm waaye laxasaayu nga dugg nga ci toolu xare ba keroog yàlla samp digg bi nga xamante ne moom la la jox mu méngoog ca keroog ba nga dem wuyu sa borom subhaanahu wa taala amul daraloo fi bàyyi lu lëndëm amul dara fi bàyyi lu dut leeralal nga ko sallallahu alayhi wa sallam kon yonenti boobu moo ñu ne ci xadiis mu ne ñu man yuridillah bihi xayran képp ku yàlla nam ci moom yiw yufaqihuhu fi diin da koy déggloo diine da koy xamloo diine day def jëmm jooju mu comprendre diine compréhension diine nag du nii laa ko fekkee ñu di ko def naa ko defee nii déedéet compréhension diine du nii laa fekkee gaay di ko meloo naa meloo nii déedéet compréhension diine logiciel beeg espace beeg mémoire bi yàlla dakaa di ci sa bopp en tant doomu aadama en tant julit léegi yow complémentaire ba nga war a def mooy dem sàkku xam-xam diine boobu fañ koy sàkkoo nga nangoo toog ci ron ña yàlla jox xam-xam diine boobu ñu di la ko baaxee su ko defee ngay mémoriser di enregistrer la nga xamante ne mooy la la yàlla namal ci jiw da nga bokk ci ñuy comprendre diine waaw bu fekkente ne du mbaaxu yàlla ci doomu aadama yi nga xamante ne war nañ koy comprendre lenn ci suñu diine dina jafe benn rekk ci alquran ndax buur yàlla suñu borom tabaraka wa bu ñu demee xool ci alquranul karim mu ngi ni mu di ñu wax ci maana aaya yu fasante ko ci biir alquraan bu ñu demee xool ci saar yu féete ci suuf dinañ fa gis suñu boroom subhaanahu wa taala mu ñuy won lenn ci la nga xamante ne mooy xarkanamu la nga xamante ne mooy maana aaya woo xamante ne bu duwutoon ne loolu mooy li am ni konte woon kenn duñu ko mun a wax jalla wa ala mu ngi nii duñu won ci alquraanul karim ci suratul xashr bur yàlla tabaraka wa taala di ñu won ci suratul xashr ci njeexantalu saar bi bur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu won baada audu billahi min alsheytaani arrajim bur yàlla ne law anzalna haada alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkaruun sadaqa allahu alazim buur yàlla mbokk yi mu ngi nii di ñu gam-gamleel di ñu melale misaalu jumtukaay ba nga xamante ne mooy suñu logiciel ba mu installé suñu bopp ak mbindaafoon bu dëgër këj bu ñu naan xeer xeer boobu yàlla duppee ko jabal mu doon montagne bu ngand montagne bi nga xamante ne yàlla bu tuddee montagne jubluwu ci lu tuuti bu ci waxee lu tuuti bu ko gam-gamle ak la nga war a jàppee ni loolu mooy lu tuuti kon bu dee yàlla dafa gam-gamle montagne ci aaya bi nañ ko jàppee montagne bu nga xamante ne manees ñu ko kenn mënu ko xayma ci guddaay wala ci rëyaay walla ci tolluwaay waaw nañu jàpp ne rek montagne la boo xamante ne dayoom ci ngand kenn mënu koo xayma kenn mënu koo estimer waaw yàlla di ñu won suñu bopp ak la nekk suñu bopp dafa ndaw par rapport ak lam ñu bëgg a melale nii par rapport ak ñun lañuy ñuy mémoriser ci téere alquran ak bu dee alquran wàcc na ci montagne bu dëgër këj boo xamante ne moo gën a ëpp doole suñu bopp bi jalla waala allahu akbar mbokk yi yàlla na ñu law anzalna bu dañoo wàccee haada al quraan bi ala jabalin ci kaw doj ah di ngeen gis lu yiim di ngeen gis lu raglu di ngeen gis loo xamante ne kenn mënu koo nettali waaw yàlla boo wàccee al quraan ci kaw doj yi ci montagne lay xew pour yàlla nañu ñu la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah te nga gis montagne bi mu ni muy muy woo ragal yàlla bu muy sentir muy manifesté woo di seey muy seey comme boo jëlee karité wala sondel jégal ko ci safara nu muy seeyee hmm. allahu akbar noonu la montagne bi di seeyee bu mu wàccee alquran ci kaw montagne la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah di nga gis montagne bi di exploser bu mu wàccee alquran ci kaw doj bi nga xamante ni foo ko xayma ci guddaay weesu na ko foo ko xayma ci yaatuwaay weesu na ko foo ko xayma ci riyaay weesu na ko buur yàlla ne bu mu wàccee alquran wii ngeen di jàng nii ci kaw doj woowu di gis doj boobu muy exploser di fottasu ay étincelle di si génn muy exploser di tasaaroo wala muy seey di rouge ba jeex allahu akbar ngir lan min xashiyatillah ngir ragal yàlla ngir ragal ngir montagne bi compréhension bu mu am ci alquran ngir montagne bi lu mu xam la nekk ci alquran ngir montagne bi ragal yàlla ba muy santiir la nekk ci téere yàlla bi yàlla ne nag hmm, wa tilka al amsal attention na ngeen muytu doomu aadama yi wa tilka al melokaan bi ma leen melale nii wa tilka al amsal cax bi ma cax nii wa tilka al amsal joxañ bi ma leen joxal nii wa tilkal amsal fii ma leen joxoñal nii ak melokaan bi ma leen wax nii ne bu ma wàccee alquran ci doj dina explosé muy tasaaroo ay étincelle di si génn wala muy seey ba mel ni ki jël sa karité walla sa sondal teg ko tiimale ko ci safara ni muy seeyee noonu la montagne bi di seeyee ba mu jeex waaye noonu la montagne bi di exploser di tasaaroo ngir xasiyatillah ngir ragal yàlla ba muy am jamono bu ko alquran tiim mu nar a wàcc ci moom yàlla ne wa amsaal melokaan bi ma leen melal nii wa tilkal amsaal lii ma leen joxal nii ma melale leen ko nadribuha linnaas noonu laa koy tege ci pénc bi ngir nit ñi war ko war a mën a comprendre waaw ndii leen melale te yéena ngi ni di mémoriser alquran seeni bopp seen bopp tojot te bu ngeen jëlee seen bopp dóor ko doj bi seen boppay toj te alquran bi bu wàccee ci kaw doj bi doj bi day toj day tojatoo muy exploser yéena ngi koy mémoriser seen bopp seen bopp tojul te bu ngeen jëlee seen bopp dóor ko doj bi seen boppay toj seen boppay tasaaroo te doj bi dara du ko fekk foofu mu nekk waaye alquran bi ngeen di dugal seen bopp yàlla ne bu ma ko wàccee ci kaw doj bi doj bi day tasaaroo te yéen jël ngeen cent quatorze suuraat téeméeru saar ak fukk ak ñeent dugal ngeen ko ci seen bopp bi logiciel ba fa nekk man yàlla maa ko créé te seen bopp tojul alxuraan boobu wàccee ci kaw doj bi doj bi day toj te yéen bu ngeen jëlee seen bopp bi dóor ko ci doj bi doj bi du toj waaye seen bopp bi mooy toj yàlla ne wa tilkal amsaalu melokaan ak cax ak melale bi ma leen di melale nii nadribuha naas lii moo tax ma teg ko ci penc bi ngir nit ñi war koo mën a xool ñu war koo war a mën a comprendre ngir lan laallahum yatazakkaruun ngir ñoom doomu aadama yi ñu war a mën a fàttaliku ñu war a mën a xelu ñu war a mën a xelaat la nga xamante ne mooy la yàlla di joxoñ ci la nga xamante ne mooy xam-xam kon bur yàlla moom moom la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla ma ca moom yiw du la jox alal du la jox taar du la jox tur du la jox sant du la jox geño du la bokkuloo ci xabila waaye dalay yënkee wal xam-xamu diine moo tax yonent bi ne yufaqihuhu yàlla dalay nuurloo dalay géejuloo ci xam-xamu diine allahu akbar ndegem bu yàlla bëggalee doomu aadama bi yiw dafa am lam koy jëfloo mooy xam-xamu islaam kon xam-xam woowu di xam-xamu diine bu yeboo nañ leen takk suñu ndigg géema góor góorlu gëstu ko xàmmee ko xam ko jàng ko fas yi ne jàngale su ko defee mu doon lay njëriñ suñu société bi mu doon lay njëriñ ci suñu dund àddina ëllëg bés bu ñu yàlla fayee bépp xarfu bu ñu jàngale ni konte woon su boobaa dinañu xam ne ndekete peyooru àddina bi moom loolu dañuy jox njigu mbiskit dong waaye fajul dara ndeke la fa ne yàlla la ne fa yàlla loolu moo gën a ëpp lañ ñuy jox ci privilège su àddina ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa bi léegi mooy ñuy baaxee ci képp koo xamante ne takku nga laxasaayu nga wara suubu ci yoon balay may xam-xam walla suubu nga ci yoon ba nga xamante ne fa ngay sàkkoo xam-xam ana nan la la yàlla di teeroo ana lan la la yàlla di waajalal ngir nga nekkee ko ak malaaka yi kon képp ku bëgg xam ki suubu ci yoonu sàkku xam-xam ana nan la la yàlla di teeroo ana nan la yàlla di baaxe waaye mu sant ko malaaka yi ñu jëflante ki yow mi sóobu ci yoonu xam-xam nag ñu may nopp ci waxtaanu fajar ci réew mi FM 97.5 ci waxtu wi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna yonent bi nee na salaa sallam képp ku suubu yoon ngir sàkku fa xam-xam yàlla dina la yombalal yoon yàlla dina la xaalil yoon ba ngay tegu ngir mu yóbbu ci kiru xéewal ba nekk fa moom dem te mooy kiru arjanna yonent bi nee na léegi wa inna almalaikata la tadaa ajinnatuha raaddan li taalibul ilm nee na wa inna almalaikata naka malaayka de la tadaa dinañu lal ajin ajina xatuhaa seeni laaf yi raddin ngir ngir mande ba ñuy am li taalibil ilm sàkku katu xam-xam bi nee na malaaka yi dinañu tëral seeni laaf ci suuf ngir ngir mande ba ñuy am ci kay sàkku xam-xam te yoon ba mu nekk muy dem sàkku xam-xam kon ñu dégge ci ne yow parent ba yóbbu sa doom ca ekool ba ngir mu dem jàngi xam-xam rawatina xam-xamu alquran rawatina xam-xamu diine yow mi jël sa doom narkaa yóbbu ci école ba boo ko xamee ak boo ko xamul boo ko gisee ak boo ko gisul boo ko yégee moo xam yégoo ko xamal ne yàlla jox na malaaka yi ndigal ngir ñu tëral seeni laaf yi nga di si dox ak sa doom ma nga nar yóbbu ci internat ba mu war a jàngee alquran yow mi yóbbu sa doom ci ekool bu mu war a jàngee xam-xam ba koy njëriñ àddina ak àllaaxira xamal ne yonent bi nee na yàlla jox na ndigal malaaka yi ngir ñu tëral seeni laaf nga di si dox ak sa doom ngir day dem sàkku xam-xam fam ko war a sàkkoo ñu ne ba xam bés boobu lay yem ñu ne déedéet fekk xale baa ngi def vingt et vingt muy dem ak a dikk dem ak ñëw école ba kër ga saa yu mu génnee kër ga war a dem fa mu war a sàkku jee xam-xamu islaam xam-xamu alquran ak xam-xam ba tax muy xam njàngale yonent bi ñu ne malaaka yi dinañu tëral seeni laaf muy dox ci kaw laafu malaaka yi ba keroog muy àgg fa muy dem sàkku ji xam-xam durant année scolaire bi yëpp durant keroog muy fàggu xam-xam ba nga xamante ne mooy xam-xamu islaam mooy xam-xamu alquran mooy xam-xamu diine bi nga xamante ne moom la yàlla reconnaître ne diine boobu ci man mooy islaam islaam bi nga xamante ne moom laa reconnaître mooy diine su ko defee loolu mooy la yonent bi joxoñ ci xadis bi nee na wa innal malaikata naka malaayka yi de la tadaa dinañu tiral ajnihatuha seeni laaf yi raadan ngir ngir maande ba ñuy am ci li taalibil ilm kay sàkku xam-xam ba léegi yonent bi nañu sallallahu alayhi wa sallam wa inna taalibil la yastaghfiru lahu man fi samaai wal ard hatta alxiitaanu fi lmaa yonent bi nee nañu sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ngeneel ba sàkkukatu xam-xam bi di sàkku xam-xam ci jamono ba muy sàkku xam-xam mu ne ñu dinañ ko jéggalul yàlla ña nekk ci kaw asamaan ak ña nekk ci suuf si nee na bi léegi xataa jën ya nekk ci biir ndox géej gi ñoom it dañuy jéggalul sàkkukatu xam-xam yàlla ngir yàlla jéggal ko moo tax mu ne wa inna taalibil ilm na ngeen xam ne sàkkukatu xam-xam bi de taalibe bi de taalibe bi nga xamante ne day sàkku xam-xam nga ñun dañoo jël turu taalibe banaliser ko jëmale ko foo xamante ne bi gayri mahalliha fu mu amul place fa nga xamante ne du foofu mooy jëmukaayam boo ne taalube rek xale buy sor sagarak di dox tànku nee nag muy xeeñ sanguur kooku la ñu jàpp taalube déedéet or ko taalube muy sàkkukat kay sàkku taalib yatulub waaw taalib kuy sàkku yatulub kuy dem sàkku la muy sàkku xam-xam ilm moo tax mu ne wa inna li fi nekk kañ taalibil ilm kay sàkku xam-xam kon ñu jël taalibe bi banaliser ko ñu jël turu beneen taalube bi solal ko mbubb ba nga xamante ne mooy mbubb bu rafet ñu jëlee ko tuddee ko neneen waaw ñu jël tulu taalibe bi nag banaliser ko parce que du sangu boo ne taalibe nga nga mer bu ñu taalibe bi duñ xel yi du ñu dem fenn fudul gone guy dox tànku ne nag du sol lu rafet du du nekk si bon état kooku la ñu jàpp taalibe taalibe am yàlla jox la taalube kay jël woowal ma taalube ñu jël tulu taalube solal ko mbubu boo xamante ne kenn bëgg koo solal sa doom te moo ne bi moo ne ñu sala sallam wa inna taalibil ilm naka sàkkukatu xam-xam bi de yastaghfiru lahu man fi sama ña nekk ci kaw asamaan dañ koy jéggalul yàlla wal ard ak ña ci suuf dañ koy jéggalul yàlla dañ koy jéggalul yàlla dañu naan yàlla nga jéggal sàkkukatu xam-xam bi kii di sàkku xam-xam nii taalibul ilmu bi kii di sàkku xam-xam wi yal na nga jéggal yal na nga jéggal yàlla nga jéggal ñaali way juram yi yàlla nga jéggal way juróom bu góor yàlla nga jéggal way juróom bu jigéen yàlla nga ko jéggal fami ba mu bokk yàlla nga leen jéggal ngir kii mooy mennum jëmm ba génnee ci famille ba war a dem sàkku xam-xam yàlla nga jéggal famille boobu waa asamaan nañ koy jéggalul yàlla jéggalul yàlla kay sàkku xam-xam waa suuf dañ koy jéggalul yàlla léegi la jamono soppeeku rekk waaye ba jamono doon baax képp ku war a sóobu ci sàkku xam-xam ba ñu ko annonce ñu yëglu ko ba muy dem ñépp a koy jox la mu war a gànnaayoo fa muy dem sàkku ji xamxam xam ñépp a koy bégee ñépp a koy ñaanal mag yu njëkk yi daanoon nañu wol la muy jëfandikoo ci xeetu jëfandikukaay bay nekk ak moom ab diir léegi-léegi nga gis ñu joxe cere bu wow léegi-léegi nga gis ñu wol mbuuraake léegi-léegi nga gis ñu wol loo xamante ne kay dem sàkku ji xam-xam day jëfandikoo yóbbal boobu pendant waxtu yu gudd walla jamono yu yàgg ndax ñam boobu du gaaw a yàqu te day neex a jëfandikoo imagine buñ la walalee mbuuraake walla cere bu wow bu ànd ak tuuti lañ koy jaxase loolu war naa mën a nekk ak yow ndox boo ko war a jaxaseel rek nga am lu baax waa nga xam ne dangay ngay dóor taxaw kicc waaw wala jàng say mbind léegi la jamono soppeeku rek sàkkukatu xam-xam yi nekkee neneen ñuy dem sàkku xam-xam neneen waaye aka neexoon ñu xam ne yonent bi nee na kay dem sàkku xam-xam de ka tax ngay dem sàkku xam-xam ka takk ndigam laxasaayu war génn ci famem ngir dem wara a sàkku xam-xamu diine xam-xamu islaam yonent bi nee waa asamaan dañ koy jéggalul yàlla waa suuf dañ koy jéggalul yàlla waaye yonent bi fa mu ne déedéet xatta xiitaan xatta alxiitaanu fil ma xatta bi jën ya nekk ci biir géej gi sax yastaxfiru lahu dañ koy jéggalul yàlla mu teg si ne wa inna afdalul ilm wa inna fadlul aalim alal aabid ka fadlul qamar ala saairil kawaakib yonent bi salaa sallam nee na ngëneel ba nekk diggante boroom xam-xam ak jaamukatu yàlla dafa mel ni na weeru bi génne yeneen biddiw ya nekk ci kaw xam ngeen léeg-léeg nga gis ku xool ci kaw jaww ji xool ci kaw asamaan si gis fa weer bi ne tey ci kaw jaww ji ci kaw asamaan si waaye nga gis yeneen biddiw yi nga xamante ne danga leen di seen ñu sore ñu doon benn benn nee na xool woowu ngay xool leeraay ba weer bi di leer ci say bët jamono bi ngay xool ci jaww ji ngay gis weer bi mu ne fànn nga di ko seen ni mu leeree ak ni mu yaatoo waaye ngay seen biddiw yi nu ñu sore nu ñu tuute nee na ngëneelu weer noonu la mel ci biddiw yu tuuti yooyu ak nu ñu soree waaye noonu la boroom xam-xam amee dayoo ci pénc bi ci kaw jaamukatu yàlla kon mbokk yi lii lenn la ci ngëneelu xam-xam ngëneelu sàkku xam-xam waaye ngëneelu ka yàlla namm fa moom yiw su ko defee ñu xam ne xam-xam da di valeur bi nga xamante ne kenn waru ko doyadal kenn waru koo caaxaane bu ñu xam-xam nag xam-xamu islaam lañu wax ak xam-xamu njàngum alquran ak xam-xam bay tax ngay xàmmee la yonent bi digle ak la yonent bi joxoñ sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi